حمال اليتامى والمساكين لم يزل مظلم لهم عندهم سر وريف وقيس كل مساوي جون يا سماء مات ولدها السماء محمد رسول الله لم يساوك في هناك وقد خام محمد الامين لسنا منك دونه وسناه كسب سيدنا محمد جل مكة انما مثل صفاتك للناس te yow kat kama masala nujuuma almaahu muhammad rasulillahi anta misbaahu kullu fadlin fama tas durun ila an dawi kala duwaahu muhammad rasulillahi laka saatul ulumi min alimi alxaybi te yow kat wa min ali adama asmaahu ku sopp sayidina muhammad jol makka lam tasal fi tamairil kawni tuxtaaru laka lumaat wa abaaw jol makka muhammadat فترة من الرسل الله بسر القوم بك ربي كل مساوي Njol ma kala xat fa Gaza man la baa man la baa man la baa man la baa yéen yàlla Muhammadu laqad faaza man la baa wa taafa wa zaaro wa maraqa fi zaakatu rabi zaaro وإن كنت لم نبلغ دياره محمد لمن بحب رسول الله نرجو جوارك وخيخ يعنين بدونا على فاينا كويا لنا جلانا فتبارك الله مملني ما شاء الله dañ doon teeru rek sëriñ Ibrahima ñëw ci wetu waajuram bàyyi sëriñ Jibrilu Seck di xalifa borom yaaram sëriñ Ibrahima Seck yaakaar naa ni bu sëriñ Ibrahima jógee Ndakaaru ñëw ci kër sëriñ Ibrahima Seck fekk fi taawu sëriñ Ibrahima moom mi ñu tuddee ko jàmbaari Seexu Canaba borom yaaram mu baa Ibrahima Ndiaye defe naa yëf yi daal saf na saf ak Ibrahima kon sang bi dalal jàmm fa tabaarakalla agsi nga ci sab dëkk waaye agsi nga ci sa kër. waaye agsi nga fa tabaarakallaa ci say wayjur waaye agsi nga ci say mbokk agsi nga ni fa tabaarakallaa ci fii ñu la bëggee macha allah euh, xam naa ni fii ngay jaar dem kër sëriñ bi moo tax yaataluñ ko waaye nii rek lañ ko fa seenee ànd ak yow ba keroog ngay génn dëkk fi te génnoo ko yàlla na yàlla defal la taw feex defal la taysir defal la najaa waaye ñii la teeru nag dafa am solo bàyyi jibrilu sekk ku ne xam na ni lu mu wootee fa tabaarakallaa du wéet ndax xolam ndax mbaaxam ndax Ah, dinañ ci dugg ci détails yi bu ñu demee ba ci kanam mi ngi nii toog macha allah toogal fi boppam toogal fi mbokkam waaye toogal fi waa Romadou yëpp waaye ñëwaat nag wéttali bàyyi Serigne Jibrilu Seck waaye macha allah El Hadji Pape Mor Gueye moom it mi ngi nii fa tabaarakallaa bu ñëwee fii ci kër borom yaaram teeru la sëñ bi mën naa nekk ndax nag fa tabaarakallaa ah, jëmb ñes la woon ak faat ñes jëmb ñes jur Baye Talla Gueye faat ñes jur sëñ Ibrahima Seck kon fa tabaarakallaa ni ko Baye El Hadji Sunu bu waxee mën a tëgg andiwu ci mbaar mi bijoutier nga kon mooy fa tabaarakallaa ci teertu bi la bokk waaye sa xarit sa soppe te nga euh, wax nu ko muy sëriñ Asek borom digal may wax ni moom ku ko sopp rek diine ji nga ko soppe ku ko sopp rek tarixa maam bi mu ko ko soppe waaye di xaritu nag bàyyi jibi moom mit fa tabaraka la amul sago ci bàyyi Cheikh Jibrilu mii te nag wa ma shahidna illa bi ma alim na kon moom it moo la teeru muy sëriñ Asek bari lool fa tabaraka la ay yitte waaye nee na waxuma la Ibrahima waaye lu bàyyi jibi soxla bay naa lépp cheikh bi yàlla na yàlla dëgëral la ci barke sang bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci fa tabaraka monsieur le maire l'infatigable laa ko tudde alaaji taala Jaañ nga xam ni wax dëgg yàlla doon meer fa tabaarakallaa taxu koo jaxasoog Thiénaba ndax ku ne maam maam ma paate jaayee sa maam fa tabaarakallaa bàyyi koo jaayaan nga xam ne maam Amari Ndaak ba muy def jawlaam bu réy ba juróom-ñaari at la am la am jaayaan doy na sëkk fa tabaraka la ñu ni waajuru Baye Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ni moo génn àdduna bu yàggul di maam Ibra Penda foofu la sox ko muy maam Penda Mbay kon doy na sëkk waaye mooy muy xarit di soppe di taalibe Sëriñ Jibli waaye di soppe ca la ba gépp monsieur le maire ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla dëgëral taaral nga jotaay bi toog nga ci sa wetu soppe yàlla na yàlla dëgëral ci barki sang bi sallallahu alayhi wa sallam duma ko sax yaatal ndax fii kii Ibrahima Cissé la ceeg kenn fu ñu toog nag waa ci sa seen wet yow it ñu ngi lay ziara di ñaan nag ci barke yonent bi sa ñëw bi yàlla na yokk ci zaahir di yokk ci baatin ñii la teeru nag Cheikh Ahmed Tidiane Ndao bokk ci ñun ñuy tàgg yonent bi yàlla jox nu mission tàgg ci yonent bi saa sam nga bokk moom ndey nga xam ne yoon yi ba ko jàppee ba tey amul lenn lu ma ci wut ba keroog ci guddi mu jël la jox ma la téléphone ñu waxtaan lu yàgg bi ma coupé dama ni dama ni cher Serigne Ibrahima bëgg naa ko te gisatuma ko te gisaguma ko kon fa wasalaatu wasalaam ala ashrafil anbiyaai wal mursaliina sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa nee na ñu ngi yëkkati kàddu ba Cheikh Jibrilu ci ndigalam ngir jottalil ko ko nee na donte sax tuut nañu ci remplacer ko nag ci kàddoom gannaaw nag ba ñu nuyoo Baay Cheikh Canaba baay sëriñ abdourahim Seck nee na yàlla na ko yàlla dollil wér yàlla na ko yàlla kartanal nee na mission bii mu yore yoreel ko baayam yoreel ko maamam yoreel ko ay magam nee na ndam luñ ci amoon rek yàlla na ko yàlla defal barkeb seexu Canaba nee na ñu ngi nuyu bu baax Cerno Alfahim Ba mi ngi nii toog nee waxtu wii démb nii la ñu fi tooge woon ci gan ñu jóge woon nag ndakaaru ñëwoon ziyaar si sëriñ bi ànd ak moom nee na waxtu wi démb ñoo ngi toog fii di def nag lu mel nii kon suñu xëyaatee tey itam bokkaat nag toogaat fii di defaat loolu nee na warees na koo sant ci loola waaye warees na koo gërëm ca loola waaye loolu lépp xam ni rek kër gi moom këram la cëram la sëriñ jibrilu magam la kilifaam la waaye ba lu nekk rek mu nekk nag ak moom ànd ci ak moom nee na yàlla na yàlla fay ko ñi ngi nuyu bu baax sëriñ Asek borom ndigal ñu koy ziyaara bu baax ñun ñëpp dig njaboot seede nañu cofeel ak wegeel ak mbëggeel goo xam ni dox na digganteem ak Baye Serigne Jibril Serigne As ñi ngi lay nuyu bu baax ñi ngi lay ziyaara ñi ngi lay ñaanal borom bi yàlla na yàlla yokk saw fan ak sa wér nee na ñi ngi nuyu bu baax monsieur le maire alxaaji Taala Jaañ nee na moom bu xasee toog fii rek nee naa ko man soo xasee dugg ci kër gi rek gisatuma kasketu maire doom laa fi gis akuk taalibe moom rek laa lay xoolee. ndax yow. mook Serigne Jibi mook Baye Serigne Jibi ñoo bokk képp yam ci kër gii. cër gi fi Serigne Jibi am rek. di doom di taalibe nekkal fi nag kilifa ya loolu rek moo nekk ci wetam moom mii di ko wéttali ca loolee. kon monsieur le maire ñi ngi lay nuyu bu baax loolu yàlla na yàgg yàlla na ànd ak wér yaara bi ñi ngi nuyu bu baax fa tabaarakallahu alxaaji Pam Mor Gueye ñi ngi koy ziyaara bu baax ñi ngi rafetlu kàddu yi yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla musal ñi ngi nuyu bu baax itam ñi nga xam ni ñoo doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu di jël nuyoo ak mention spéciale di ko teg ci loxol alxaaji Baara Ndiaye mi nga xam ni nag tey jii mboolem luy njabootu Baay Ibrahima Ndiaye ak njabootug Baye Mbaye Kabbu mooy seen kilifa ak alaaji Cheikh Ndiaye Cheikh newu fi ma nga ba Kédougou waaye bët bu set ñi ngi coordonné ci bis bi ak lu ko yiwal ak lu ko defar ak lu ko taaral alaaji Maar Talla Sarr alaaji Laay Sey yéen ñëpp bët bu set rek yéen a ngi woote yéen a ngi soññee ngir bis bi bëgg mu sagu bëgg mu baax bëgg mu rafet kon sëñ Ibrahima kon sëñ Ibrahima. gannaaw nuyoo yooyu gannaaw nuyoo yooyu nag dañuy boole nuyoo yëpp dañuy boole nuyoo yëpp teg ko ci sa loxo teg ko ci sa loxo muy nuyoo Baye Seexu Jibril nga yóbbaale nga yóbbaale ñi nga àndal ñi nga àndal ñëpp di say taalibe di say wëllëre di say xarit di say am di jàmm ñi ngi jël nuyoo boobu di ko teg ci sa loxo nun nag nun nag ci kàddug Baye Seexu Jibrilu bi ñuy waxee bi ñuy waxee kontaan nanu kontaan nanu bég nanu sunu xel dal na ndax nee na leneen loo wote woon lu dul lii ku ko dégg ta xam dina ni accam ndokk nag ndokk nag yow ba nga xamee ba nga xamante ni li la war xam xam fi nga bokk xam xam ki nga doon ba mën a taxaw incarné loolu ba mën a taxaw tey jiitu mbooloo topp ci sa gannaaw nga xalaat ni man kat ndaw laa nekk ci jamono yàlla boole maa ngi mbooloo waaye lu ma mën a am ci daraja lu ma mën a am ci wilaaya cana ba rek ñooy sama yaakaar ñooy samay sëriñ mooy sama dëkk falaa am samaam Talla Ndiaye samaam Talla Ndiaye bi mu ñibbisee ci dëkk bi mu ñibbisee ci dëkk nekk ak Serigne Ibrahima Seck juróom-ñaari penc nee na juróom-ñaari penc yi waroon na koo moom waroon na ko waroon na koo moom lépp la geddoon waaye lépp la geddoon ngir jënde ko ngir jënde ko diina ji ngir maam Talla sekk rek mu ànd ak góor gu mag mu ànd ak góor gu mag di ko tarbiyu di ko tarbiyu di ko tarbiyu ba góor gu mag gërëm ko gërëm ko ñëpp na nee na ñëpp ko seede ba góor gu mag ba góor gu mag. ci luppam ci luppam la wàcc liggéey. loolu doy na sëkk ay seede. kun ni mooy sa maam kun mooy sa maam nag. loo def lu dul baax defoo la la war. ndokk nag ba nga xamante ni loolooy sa cër loolooy sa wàll nga nekk ca ba cëru ca yàlla na la yàlla jàppale fa tabaarakallaahu nee na ñu wàññeeku nag duppe la ba Ibrahima Njaay mi nga xam ni mooy taaw maam Taala Njaay ñu duppee la ko ñu duppee la ko nga bokkoon ak nun newoon ci dëkk bi tarbiyu fii ba li nga fi waroon a am nga am ko génn nekk ci yeneen ba boole ko lii kon nag soo wàññikuwaatee xalaat ni man dey lu ma mën a am cana balaa am waaye sama buntu cana ba mooy Seydina Ibrahima Seck ne naa Cheikh ci suba man de li ma neex mooy mooy lu jóge ci ci ci Baye Talla Ndiaye lu jóge ci Baye Talla Ndiaye lu jóge ci Baye Alaja lu jóge ci Baye Alaja lu jóge ci askan woowu lu jóge ci Seexu Canam boo ko jaar ci Sëñ Ibrahima Seck boo ko jaar ci Sëñ Ibrahima Seck di nga ko am di nga ko am te amin wa dina ànd ak barke dina rafet waaye billaahi waaye billaahi buntu yooyu buntu yooyu ku ca bokk ci ñii ma lay wax bàyyi ko fa bàyyi ko fa di wuti beneen bunt la ngay wuti doo ko jot la nga ñàkk ñàkk nga wa te doo ko amati ba ilaa yow mu xiyaamati ko nag yow ba nga xamee loolu ànd ak say bokk say doomu ndey ñu ngi nii ñëpp ànd ak yow waa kër Baye mu ndaw di doomi soxna Maguette Cheikh Tidiane Ndaw ak i rakkam ñi ngi fi waa kër Baye ala di say bokk ñi ngi fi waa kër Baye Ibrahima Ndiaye ñoom ñëpp yëpp ñi ngi fi ñi ngi fi wan na ni la na la lii nga nekkee bu dul woon ak dëgg sëriñ ji bi mii du la recevoir kilifa yi fi toog kenn du dagg sa ite ñëw toog di la xaar keroog bi nga ma woowee ni ma di nga ñëw góor harakatul imaamul mahdi laa ilaa aywa def leen ni laa ilaa laa ilaaha illallah lii mooy diine maam Seex Canaba laa ilaaha لا إله أيوة دفلاني لا إله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 ما بذل سما إلا الله إلا الله جبينا به ولا جري مونغو سيد كوينونغي والثياب حياته أي قليل للأمة خمل يا صاحب الموحلة أي ما يكتبون كل مسوي macha allah nga ànd ak kan Thierno Alfayim Ba nga xam ni jamono bu sëriñ bi amee gan ku ni yow bu nee gees gis ko waaye nga ànd ak kan sunu jaraafu dëkk muy monsieur le mu toog nii macha allah nga xam ni moom moo la wariful waxay soo cheikh bi mu ni auzu billahi min alcheytaani rajim wa inni auzuha bika wa suriyatiha min alcheytaani rajim rabbi auzu bika min amasati sayatin wa auzu bika rabbi an yaqdurun la qawla wala quwata illa billahi alaliyu alazim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk yi cheikh bi nee na mi ngi wax bokk yépp asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu suñu maam suñu baay suñu sëriñ sëriñ Canaba sëriñ Abdourahim Seck xalif général ne nuyoo boobu nag dañ ko teg ci loxoom rekk waaye yamul ci moom nu ngi nuyu ay rakkam yépp fa tabaarakallaahu di nuyu doomam yépp di nuyu sëtam yépp di nuyu muqaddam yi di nuyu taalibe yi fa tabaarakallah tey jii nag itte ji ñu yëkkati woon mooy ne tey nag sunu itte yépp ba mu jaral nu ñu jóg mooy ñëw ñu ñëw fii nag ci ëttu seexu ba ne bu nu ñëwee nag ba ci ëtt bi li doonoon suñu itte yépp mooy nu jàkkaarloo ak seexu ba mu xool nu suñu xel dal ne bu nu xoolee rek suñu xel daal di dal suñu xol sedd suñu xol it daal di sedd guyyu ba ñu mën a yëkkati xaddi yonent bi sallallahu alayhi nee bu boobaa loolu dafay waral nag ñu mën a yëkkati àddiye yonent bi sallallahu alayhi sallam teg ko ci loxoom jox ko ko ngir yonent bi ñu teg ko ci sa loxo jox la ko nag ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jublu yi itam nee ñu dégg ngay wooteel ko yonent bi sallallahu alayhi wa def nee moom mii kat jëmmam ji su fekkoon óor na ko ne moom dong mën naa ñëw gàmmul la gàmmu gi ba mu mel ni nga ko bëggee moom mii da koy def waaye nag nee na su mënul loolu itam mu ñëw rek indi participation wan la ne lakat loo jàpp mi ngi ci fa tabaarakallaahu ne du yem nag ci jox la lu mu am rek waaye wóor na ko ni seedeloo na ko suñu borom ni ay ñaanam la ci boole ne li muy ñaanit li ci jëkk mooy yàlla may la ndam gu ànd ak wér ak gudd fan ne di nuyu nag di ziyaara sunu bàyyi sunu bunt ci yow di Cheikh Jibril bu Ibrahima sëriñ Ibrahima Seck ne Cheikh Jibril yow itam kat li lay ñaanal mooy lii nu ñaanal sunu maam Abdourahim rek ne buñ ci jógee nag ñu nuyu suñu baay Ibrahima Alpha Ba liñ koy ñaanal mooy li ñaanal sëñ Jibi rek nee di nuyu nag mboolem ñi nga xam ni fekk nañ leen fii nee na sëriñ Pape Mor tey jiikat bi ma dugg see Canaba nee na bi ma egsee dafa mel ni sama xol bi yàlla dafa ma wan xane xare ba badar nee na desiiti jihaad ja ca bokkoon ngir leeru yàlla gi ma xeeñ fii ci dëkk bi nee na dëkk bii nag boroom dëkk bi muy maam Amari Ndaak sekk imaam Seydul Mujahid ne ba mu toogee ci digg pénc mi nu ne ko nun waa ba ñan la ñuy roy ci diine ji dañu yéen kat amu leen kenn ku ngeen di roy ku dul saxaabatul rasul sallallahu alayhi wa sallam ndax kat booy roy da ngay roy ka nga nurool jëf te saxaabatul rasuul rek ngeen nurool ay jëf ci kaw suuf ne lii nag alquran daf koo dëggal dani amma amiltum amma amiltum anna haulaai abaaukum fi ddin fa allama aljazau walmawtu fi xaqikum qalil yàlla nee na ci alquran nee yàlla dafa wax ci alquran ni seeni baay ci diine yéen kat seeni baay ci diine mooy ña nga xam ni ñoo bokkoon ak sang bi naa muhammad di jihaad te ñooñu nag bu ko yonent bi waxee mooy saxaaba ya nun ñii nag sunu maam saydul mujaahid maam ahmadu ndaak sekk ña mu àndaloon doon jihaad seeni desir rek ñoo toog fii nuy ñaan nag loola nga xam ni moom la mag ñi jëmbatoon muy rafaatal ba egsi ci nun yàlla na sunu borom bi sàmmal nu ko ne bàyyi sëñ Canaba bàyyi Abdourahim ne yow kat dalal nga xelu réew mi de kilifay diine yeeg kilifay aada yeeg ñu ndaw ñiy nab nabi ci diineeg ne ñoom ñépp tax nga ñu ñime nag waaye li nga leen ñimeloo mooy leeru yàlla ndax kilifa bu nee yëkkati naa sama mbootu fas yéenee boot ñépp ñi mënta dox seen xel day dal ñi am jafe-jafe seen xel day dal sa kàddu googu nag wër na àdduna de te kilifa bu waxee yàllaay njëkk a dégg yonent bi dégg awliyaa yi dégg malaaka yi dégg ña topp ci dégg soog caa topp nee na bis bu ko jëfewul ñu ni accam nañ ko dégraté bis bu ko jëfee nag lu waay jëfati ñu boole kook loola dollil ko ay garaatam noo ngi lay sant di sant yàlla bu baax di xam ni kàddu yooyu nga xam ne yëkkati woon nanu ko ah kàddu yi nga yëkkati noonu sa mbootu moomu dugg na ci xoli waa réew mi yépp itam kàddu yooyu nga yëkkati dugg na ci xolu réew mi de man mii nag kàddu yooyu bokk na ci la ma soññ ba ma yëkkati àddiya indil la ko ngir yàlla ak rasulullahi di la sant di la gërëm kàddu yi sax jaru ko woon waaye damaa ànd ak ñoo xam ni dama leen a indi ngir ñu xool cana ba rek liñ fi war a def buñ duggee kenn du leen ko wax ndax ñoom kat dañoo bokk ci njabooti réew mi te yàlla def na ku ñuy dimbali ci réew mi ñoom la yàlla def ñoo yor ndimbal la ma indi leen ci canaba ngir wan leen ko xar kanabu sëriñ canaba wan leen njabootuk sëriñ canaba bàyyi leen ak seen xel lu leen yàlla defloo rek ci njaboot gi dinañ ko def ñoom ñëw nañu dañuy ay nit ñoo xam ni bëgguñu ku leen tudd ndax fa ñu dëkk sax dañ faa làqutu waaye ay kilifa ñi ngi ci saal bi li leen fi indi mooy xool cana ba lu ci war ñu def ko ànd ceeg man loolu itam maa ngi ñaan bàyyi sëriñ cana canaba mu ñaanal ma ci loolu ba man ma bokk ci ñi nga xam ni bu ma duggee cana canaba yaakaar yépp du tas yàlla na ko yàlla def nee na nag ma ñaanal ba bu ma duggee ba yaakaar yépp du tas ndax man fii kat laam-laamlee wu ma ni laam-laamee wu ma ni canaba gii yaakaar du fi tase ku xam canaba xam démbu canaba xam tayu canaba xam ni canaba boo tooñee di daw sax ba dugg canaba mucc nga ndax li aar dëkk bi bu boobaa moo lay aaraale nee na waxatuma la nag tooñoo tooñaanoo nekk ci dëgg dugg fi bu boobaa koy waxatuñ ko bay alaaji sëriñ taala xaar sekk dafa am ku doon defaru ci wàllu yàlla mu ni ko canaba ñun daal ñaari yen lañu yenu boo amee jafe-jafe ci wàllu yàlla soo ñëwee mënoo mucc ci suñu ñaari yen yooyu bu la neexee nag ma defar la te da ngaa yenu ba dis gann dama lay yenni ba nga woyof tooy yenaat la ba nga dis gann waa ji ni ko kon jarul nga may defar soo ma yennee yenaat ma kay na ma meloon nga ma bàyyi mu ne ko déedéet dangaa yenuy bàkkaar ba dis gann ma bëgg laa jox istixfaar yenni la ba nga woyof tooy ji ah, jëlaat xayla la mooy laa ilaha illallah yenaat la ko ba nga dis gan boole ci nag kenn dootu la mën a yenni booboo gën de mu ni ko yen yooyu moom la ñu yenu moo tax bariwuñu bur moo tax duñu dox moo tax kenn duñu dégg dañoo yor loo xam ne daa dis gan mënuñu ko yóbbu fu ne dégg nañ la bu baax danoo yor loo xam ni loo xam ni dafa dis gann moo tax bariwuñu dox te duñ ko yóbbu fu ne moo tax sunu dox du mën a bari loolu la ko Baye Talla Xaar wax yàlla na yàlla dolli ko leer Baye Abdou suñu Baye Sëriñ Madike Seck dafa waxoon ni Baye Ousseynou Xaar Seck ginaar la gu boof taalibe yi xam leen ni cuuj bu bëggee mucc bu yaayam boofee na daw dugg ci ron gi lu ko mooy rek caal yi dinañ ko këf te yaay ja du daw bàyyi ñi mu boof day bañ a ñàkk ñaare baay Abdu mii nag dama leen koy joxañ am naa ci kersa sax mbootoom gii taaliba bu ci duggul mucc nga bu ci dugg mucc nga man mii day li ma fi indi mooy daw dugg ci biir bu ma fekkee mu fees dinaa xeex ba dugal sama tànk ci biir mbootu gi yéen nag di ngeen ci am problème da ngeen a yaakaar ne na ba donga ciy dugg ñépp a préparé wu pour ñëw dugg ci biir loolu xam leen ko de sëñ As borom ndigal sëñ As wuyul sëñ aas yow mii yaay xaalid ibnu walid nee na xaalid ibnu walid bu Cenaba mooy sëriñ aas sekk fu diiney Cenaba àgg dana ko fa yóbbu damaa toog ak kilifa mu koy xool ba ci yàgg mu ne ma ku bëgg baa nga ne ma ne ko daa gis lépp nee na sëñ aas mbëggeel googu nga bëgg ba sa garaat boobu rek di bëgg canaba mën nga cee dimbali réew mi yépp nee na nga may ko mu àggale tuuti jërëjëf alaaji Pambuub nee sëñ Ibrahima nee na cheikh bi nee na dafa ñëw nee na moom nag yàlla dimbalil na ko boppam waxoon naa ni soxlaatuma ndimbal waaye damaa ñëw ngir xamal nit ñi ni yeewu jot na bu kenn nelawati ànd ngeen ak koo xam ni dimbali leen dong moo tax mag ñi teg ko ci seen kanam ndax moom dimbali nañ ko ba pare canaba canaba canaba sëriñ canabaa ngi nii toog canaba ku leen bëgg a dimbali te du leen nax bootu leen ci no sëriñ canaba bëgg leen a boot nag taxul mu boot leen de ndigalul maam amari ndaak ndigalul maam taala moo tax mu boot leen gàmmoom gii mu taxawal ci melokaan wii coono yii sëñ As wooteel loo man maa dégg nga ni gàmm gi dina neex lool nga ci waroon teg Baabdu man dey sa doom laa ju doon dox fu ne ma dugg fa fu ne ma dugg fa fu ne ma dugg fa ba ci yàgg sunu borom yërëm ma wàññi ma boole maag loo xam ni nee na ma demal ku la neex nga dimbali ko yow moom kenn dootu la dimbali yàlla suñu borom moo jël ay engagement am ci man waaye ñii nag nga xam ne ñooy taalibe yi dama bëgg ñu xam ni fu ñu jëm fu dul ci yow duñ fa àgg sax li des ci yoon wi kenn mënatu la dox jëmm ji dong moo ñu yóbbu ñu door a àgg kum yóbbuwul doo àgg fu nga jëm canaba canaba gi ngeen doon dégg gi ngeen doon dégg téeméeri at ca ren ñu naan cana baa ngi nii cana baa ngay riir gàmmuk cana ba fu mu mas a romb fu mu mas a taalubee cana ba romb ci histoire di gàmmu ji nga topp leen ndax coow la coow loolu nag la ko taaloon mooy mag ña almet dañ ko taale woon jox nañ ko Baye Abdou Baye Abdou kosal ci ren ci gàmmu gi cana ba tàkkaat ba fu mu riire ñépp noppi lii ndimbal la xam leen ko waxuma ko ngir bëgg a wax de man dañ maa wax loo man lépp laay wax seen ndimbal lii jëriñoo leen ko bala leen cee xat-xata fekk xat-xat loo di fekk gaa yaa ngi ñëw de murid yeeg xaadir yeeg ñeseen yeeg laayeen yeeg ñépp fas yéene ñëw dugg ci mbootum Baay Abdu ren nag dina leen jox surprise bala maa daadeel maa ngi leen di giñal ci màggug yàlla ruyu sel yépp ren canaba la ñuy gàmmoo ngir ndokkeel ko njëkk leen ci waay jël leen seen addiya jox ko ko Ibrahima Ibrahima Ibrahima góor gi ubbil leen ko compte yu bari na orange money bari àdduna bépp dinañ ko wuy si ànd ak moom defar canaba defaruñ ko ngir moom dañ koy defar ngir sagal diina ji canaba bu demul diina ji du dem fenn lii wane na ko yonent bi woote ñépp noppi baab du ni faaw ma wooteel ko looloo koy wane canaba mooy gilin gilin gii téye taay bi mën naa gëmm nag waaye bu fayee diine ji fay te du fay te diine islaam ndamam mi ngi cana ba gii nee sëriñ ma dikka sekk nee na waa gaa yi jaasi jaa ngi nii bindkaay yaa ngi nii nañ taxawal diine gaa yi bind bëgguñub coono dégg nañ gaa yi bind. gaa yi bind bëgguñu coono ñi jël jaasi ji ñoo bëgg coono <laughs> dégg naa la jërëjëf Ndiaye sëñ ji bi nee na jërëjëf. waaw kontaan nañu. kontaan nañu. na sëñ Madické présenté nee na sëriñ Madické teraanga yi nga xam ni moom laa indi damaa bëgg nga présenteel ma ko waaw. na nga ko présenté. ne man daal li ma bëggoon am naa ko. mooy jàkkaarloog sëriñ Canaba mu xool ma man de xam naa ne yàlla dimbali na ma ci xar kanamam yéen nag dama leen doon soññ rek di leen junj rek li ma leen wax ni nag moo am mooy réalité leneen amul. ñëwati nañu ci sa kanam sekk fekkate la fi yàlla nañu fi yàgg ñëw di la fi fekkat yaakaar naa ne waxtu wi démb. noo ngi ci sa kanam di jooxe lu mel nii ànd ak sa doom ji sa jëwriñ ji di bàyyi Cheikh Jibrilu waxtu wii démb fi lañ jullee timis mbokk yu mel nii ànd ak Cerno Alfa Ba ak monsieur le maire mi ngi nii toog Alhaji Talla Diagne tey jii ñu ñëwaat ci sa kanam ànd ak sa doom sa sët bi di Alhaji Ibrahima Ndiaye di doomu Baye Mbay Kàbbu di doomu dëkk bi di sëtu dëkk bi fa tabaarakallaahu mu woote woon ñëw naa fi ba mu wootee xamal la ni la am na sa sët bu la bu fi woote bëgg laa siyaar si ba ñu jàppee bisbaat ak waxtu wa ñëwaat naa ba ci yow waxtaan ci ak yow nga accordeel ñu ziyaar booba sëñ Ibrahima moomu nag moo ñëw nii tey ci sa kanam indi addiyaam yeeslu ci sa kanam ngir yàlla ak diine ji waaye ngir yàlla ak Seexu ba wax dëgg yàlla nee naa ko ca kër ga surtout Baye Talla Ndiaye bokk war teg sa tànk ci diina ak islaam moo la war ba nga am xelum tey ànd ak say xarit ànd ak say àndandoo ànd ak say taalibe jël taraanga yi indi ko boole na ci ñaari giléem mi ngi ci biti boo jógee gis ko incha allahu nga ñu koy ñaan ak ñetti écran plat boole na ko ci ay tele nga dollil nu ko ñaan yàlla gën koo musal yàlla gën koo taxaw yàlla gën koo aar yàlla gën koo sàmm ba yéene yii mu am ak camion ndax it indi na ko su ko defee yow nga gën nu ko ñaanal te taraanga joojoot baay sëriñ bi nee na naa la seedeel ni taraanga jooju la indi ca kër sañ Ibrahima teg ko ci loxol sëriñ bi taraanga jooju la jël yóbbu ko kër baay Ibrahima Ndiaye mi nga xam ni mooy baayam ci buntam ci cana ba fa tabaarakallaahu kon yooyu yëpp suñ ko defee ñëw tees ci sa kanam yow lañu ko defal ndax yaay seexu Thiénaba yaay baay yaay kilifa yaay imaam yaa nekk ci kanam ñu nekk ci sa ginnaaw ñu ngi lay ñaan nga ñaanal nu ko yàlla yal yàlla musal ko yal yàlla wattu ko yal yàlla aar ko ba yéeneem ci yow ak yéeneem ci dëkk bi ak mbokk yi yàlla motali la ko ba xurmati Mustafa sa alayhi wa sallam barke Seexu Thiénaba wa salaam. indaale naa ko loolu nag Baye Abdou yow la ko defal ne su ko defee dan ko war a limaale ci biir teraanga yi taalibe yépp xam ni yéen la ko defal sëñ sëñ Ablaye Sey moom it jàmbaari ma ëmër ndag gi nee jox na ko mbubu nee na loolu tam si teraanga yi la bokk dañ ko war a feeñal ñi bokk ak moom ndey ak baay ne mu sagal leen fa teraanga yam yàlla dana ko andil ku ko sagal ku ko teral teraanga ju ni jongu fa teraanga yam nee lu waay leble loolu la la yàllay fay te ab taadin yanaalu ridaaha kulla abdin muwahidi cana baa nga naan sayduna muhammad ala xata'in fi sanbi aw anta mudi yun tal muhammad kon nag jaraa imana jaraa imana yàlla sunuy bakkaar تمحى بجاي محمد إذا سفي المحبوب جاس ورضي الله عن شيخنا السيد المجاهد مام أحمد داك سك وعن جميع خلفائه أجمعين mbokk yi teew ci saal Serigne Ibrahima Ndiaye Baye Abdourahim di sa waajur di kilifa ci yow mi ngi lay nuyu lu bare bari te di la ñaanal Baye Abdourahim mi ngi lay dalal fii ci ëttub Baye Cheikh Thiénaba maam Ahmadou Ndaat Seck di la wax ni udxuluha di salaamin aminiina duggal àndal ak jàmm àndal ak sécurité te fii sécurité kër Cheikh ba mooy laa ilaha illallah kon jotaay bi yërmande mi ngi nii ba Abdourahim mi ngi lay dalal ci teewaayu jëwriñam sëñ Cheikh sëriñ sëriñ ji bi Seck ayyadahu llahu wa nasarahu sa soppe la sa waajur la sa lépp la waaye nanga nga ni ku jàppale sëriñ bi la mi ngi lay dalal ci teewaayu suñu sëriñ sëriñ Alpha Ba bu Wouramadi di ku baax di ku bëgg baay Abdou mais ñu ngi lay dalal ci teewaayu jëwrinam sëriñ Talla Diagne di meeri dëkk bi ñu ngi lay dalal ci teewaayu sëñ As Ndigal di jëwriñu Baay Cheikh Canaba démb rekk ci tool yi nga xamante ni Baay Cheikh Thiénaba moo ko woote woon bokk na ci ña njëkk bokk na ci ña fa mujj jóge te dafa am loo xamante ni nit bu jëlee ay responsabilité ci kanamu nit ñi wax ko publiquement dañ ko war a delloo njukkal yàlla boole na ko ak ay ndaw yu ko déggal waaye dafa taxaw ci kanamu Baye Cheikh Canaba ni man maay sa premier taalibe lépp looy woote xamatuma suma soxla kon kooku dañ ko ciy gërëm mais aussi mi ngi lay dalal ci teewaayu doomam sëñ Ibrahima Seck di taawam ak sëñ du sekk ak seeni rakk ñoom ñépp mi ngi lay dalal aussi ci teewaayu taggkatu yonant bi yii nii ak taalibe yi fi teew ak muqaddam yi fi teew sëñ Ibrahima Saada mu sama baay taalaxaar sëñ Ibrahima Saada sëñ Ibrahima Saada te mi ngi fi teew nga teewe loolu sëñ bi sekk ànd na ak njabootam yépp ñu ngi fi teew comme bañ a guddal si Pape yaa ngi ànd ak moom te mu am taxawaay bu dëgër ci kër gi ak takkat yonant yi ak mu xaddam yi fi teew dafa am loo xamante alxuraan day àtte te alxuraan dafa nekk téere boo xamante ni laa yatihi lbaatilu min bayni yadayhi walla min xalfihi nee nan sax boo géntee jàppal jublu penk julli ñaari rakka tijj alxuraanul karim aaya boo njëkk a jàng rek mooy sa gént firi na sa gént am na ñoo xam ne noonu la ñuy firi gént danga nga jox sama baay Abdourahim muy bàyyi xalifa bi téere bii muy alxuraanul karim mu tijj ko ma ni nii loo man yuslim wajhahu ila llahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati l wusqa wa man képp koo xamante ni jébbal nga sa xar kanamu xol ndax nit da dana jàkkaarloog yow jaayanteeg yow te fekk gëmu la waaye ku jébbal sa xar kanamu xol jëmee ko ci yàlla na la wóor ni jàpp nga ci buum goo xamante ni du firinciku te du dagg ba ilaa yawmi diini wa ilallaahi aqibatul umuur te yàlla ci la mbir yépp di mujj te yàlla moo wax lii sëñ Modou tijjiwaat ko léegi ma ma xool mu nekk yaa ayuha alladina laa yaxzunka yu yusaariuuna fi lkufri boo nekkee ci dëgg ñuy def seeni complot ngir pertil bira ñooñ bu leen faale kon mbir yi bu ñu yamoon foofu saxanaa tontu la waaye dama ni jug jëm ci kilifa alquraanul karim dafa am lum ñu ci jàngal dani yaa ayuha alladina amanu isa naajaytumu rasula fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa dalika xayrun lakum wa athar fa in lam tajidu fa inna allaha xafurun rahimun nee na jug jëm ci kilifa moo jug jëm ci yàlla ñooyam te jug jëm ci yàlla dafa bëri ay gàllankoor kon jar na saraxeel dama jël nag boole ci àddee ju toll nii àndaaleel ko sëriñ bi kilifa yàlla moo koy sàkkal boppam te boo demee waxuma la ci baatin waxuma la ci tasawuf waaye ci fiqhul islaami nga xaman ci zahir lay wax dañuy jaraaf ji jiite jihaat ji bu nu xamoon ci moom ni ab faasix la ku génn topp la day mooy yàlla teewul na ko mbooloo mépp topp ndax loolu mooy jàmmi jullit ñi damaa jëlale kilifa ko xëy yàlla moo ko falal boppam kilifa gu yàlla falal boppam boo ko wanee ginnaaw sa bopp ngay posone falamma zaahu azaaha allahu qulubahum bi annahum shaaqu llaha wa rasulahu wa man yushaaqi llaha fa inna allaha shadidul iqaabi jafe-jafe yàlla tegoon naa yi ak ñu mel ni ñoom lenn wëralu ko lu dul doonoo contre yonent bi ci seen xol yàlla nee na képp ku contre yonant bi wala képp kuy représenté yonant bi ci kaw suuf na nga xam ni mbugalum yàlla mbugal mu tar la kon sa ñëw bii tey nga ñëw àndaale yéene àndaale sa ay àndaale say taraanga àndaale say nit ñu baax loolu jëf la jëf ju baax la joo xamante ni day delluwaat ci yow alxuraan dani wa ida qiila lakum tafassahu fi lmajalisi fafsahu yafsahi llaahu lakum nee na bu ngeen nangoo yaatalante ci xéewal yi leen yàlla baaxe ci jotaay yi leen yàlla xéewale ci nit ñu baax ñi leen yàlla jox mais ci nombal tànk yi leen yàlla tànk euh, tabal bu ngeen ko nang bu ngeen ci nangee yaatal rek yàlla yaatal seeni mbir kon mbir lu baax lii nga def lépp day delluwaat ci yow alquran waxaat ni wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa azama ajra alquran waxaat ni lépp loo xamante ni jiital ngeen ko ci aw yiw du sànq denc la bu leen yàlla di dencal ëllëg te dangeen ngeen ko fekk ca kanamu seen borom incha allah mu fulal leen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawu lekk sarax ndax sarax dafa am ñu ko aajowoo te yàlla wax na leen ci alquran innama sadaqaatu lil fuqara wal masaakin wal amilin ba aaya bi jeex waaye nit musta jógee fenn rawatina sax nga jóge fu sori ñëw jox ko àddiyee te barkeel wu ci jox taalibe ñu barkeelu àddiyee dafa nekk lu kawe dafa nekk loo xamante ni day dëgëral buum gi yeewale ñaari soppe moo tax yonent waxoon te hëdu taxaabu dee leen joxante àddiya seenu cofeel dana yokk kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye ku ràññeet la nga ku ràññeet la nga ndax nit ku baax baax loo baax baax baax baax nekkul lu yéeme ci kanamu sunu borom nit ki loo baax baax ak sa martaba lu mu mën na toll xamal ni nekkul dara ci sa kanamu borom ndax man amila saalihan fa li nafsihi ndax nit ñépp buñ daje topp yàlla mooy yàlla amul bokkaale yàlla amul du yol du yokk dara lu toll ni misxaala darratin ci nguurug sunu borom bi ñépp buñ daje mooy yàlla lànqal sunu borom bañ kaa topp du wàññi dara ci nguurug sunu borom bi fii ci Canaba Seck ku yàlla baaxe rekk yaa fiy dëgmal suñ maam Mor Gueye dafa doon tukki dugg ci benn dugg ci ak bataraay bi mu de muy waxtaan ak benn kenn kum dendal xuma la dara sax waaye aajooy dëkk bi ak aajooy àddina bi yépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee waaw bàyyi tax nga joxoñ ko sama baaraam bi nee ci moom la jëm bii ah ñaari joxoñ la nii la jox ko yëpp jël leen image benn joxañ bi ci chef bi la jëm benn bi ci moom la jëm ci xalifa bi la jëm nee da ko ni sa aajo faju na ci man am na leen loxo yi من Ah, li ci kanam nag rawati bët dañoo ñëwoon rek ngir nuy ci sëñ bi indil ko àddee waaye daal suñu alfa suñu xol sedd na suñu xel dal na eh, am na yeneen yu ñu war a def waaye dañoo ñëwoon rek nii te gëm naa ne buñ ñëwaatee dinañ gën a yaatal insha allah rabbi alhamdulillahi lazi jaasi manasano bil xayri wal mafaati nga dégg nag ñu ni canaba day dem day dem waaw loolu nag insha allah waaw canaba day dem day dem alhamdulillahi lazi jaasi